ay baykat la yuy néegandiko ak doole ñu indi leen jiw wi mu teel a teew ak li muy àndal balaa nawet bee wàcc ndax li dox suñu diggante nawet bi mel na ni bëree ñu bari ci ñoom jot nañoo ruuj seeni tool di xaar jiw wi teew ba nga xamee ni kii di sëriñ bi di xalifa général des mourides joxe na ndigal ngir ñu dem delluwaat ca tool ya xam ne yaa ngi war a dem sa tool ya war a na ruuji fi mu ne nii waran ngaa xam li nga war a mën a am siw jiw ba mën koo ruujal kon nag léegi li nga xamante ni moom la ñuy def gouvernement bi mooy li nga xamante ni moom lañ ko daa defati muy gënati ko soññe li nga xamante ni mooy wàllu mbay wi nga xamante ni moom lan dugg mu gën nu see jàppale tey jàppale gi tam nag bëgg nañ mu gën a tey raw nam ko daa def ndax baykat boo xamante ni fi mu ne yaakaaroo lu may bay mu war laa jox ay fukki kilo juróom ñaar fukki kilo loolu jëriñul dara koy bay kon nag léegi loolu na ko soppi. jamono yi nag doon na jamono yoo xam ne moo gën a yemb ci yóbbu lool nga xam ne mooy jiw wi ak lépp lu aju ci loolu di wàllu mbay mi balaa taw yee wàcc ndax saa su tawee wàcc lii di yoon yi jëm ci àll yi léeg dana na naqaree jël ñu bari ci baykat yi léeg-léeg ñuy am ay jafe-jafe teew ci dëkki taax yi jël seeni jiw yóbbu ko ci seeni tool bu ñu sañoon nag jiw wi teew balaa ba tëse bi bàq bi tooy lu weesu fii rek boori Saalum ak ay côté yooyu fi gën a sori ay Casamance bu xasee taw camion mënatu faa dem dara mënatu faa dem lu yóbbu jiw kon nëga nii war na noo jël bi décision boo xamante ni lépp lu waaye di jot rek war nga see jot bu dee kemb la baax na nga xam ni yow lii baax na testé nga ko ba mën na jiw bu dee xott laatam nga xam ne xolli dala say war ak yeneen boobaa loolu lépp dinga ko mën a def balaa jot waaye su loola li amul ba yàlla si taw ba tooy xëpp nga bëgg a yable ñu bëgg a jiwu jiwu wa illaa léegi li nga jox nit ki doyu ko si jiwu wa illaa li nga ko jox da koo war a xolliwaat wala yooyu bu dee loolu si lay yaakaar mbay ab newetam day daal di échec te nawet moom day loo xamante ni lu si war a fonk la firiw lii li nga xam ne moo ëpp ci lu jëm ci mbay mi muy jiw wi ak jumtukaayu mbay jox ko ay boroomi doole yoo xam ne bu ñu seetee dañ koy jëfandikoo ci yeneen anam wala ñu koy jaay doon na loo xam ne baykat yi ne ni nemmeeku nañ ko lool mu yaatu ci Sénégal bu ñu sañoon nag ñi nga xam ne ñooy aji baykat yi lépp lu jóge te jëm ci mbay mbaytaab ji seen loxo. sareet bii bu tëgg la cent mille francs lañ koy jëndee gouvernement bi léegi matériel agricole bi nga xamante ni génne na ko mi ngi génn sareet yoo xam ni mi ngi ko jënde moom neena na cent quatre vingt mille bu ko subventionné soixante dix pour cent mi mi ngi koy jaay baykat bi quatre vingt mille te sareet yooyu même bu nu ko doon may ñun dañ koo bëggul ndax boo gisee pënu yi fi mu ne moog pënu yi Jakarta ñoo tolloo. am réew mënut a soqaliku te taxawalu ñu mbay mu wér Sénégal ginnaaw at yi ak programme yi nga xam ni nguur yi fi jot a jaar taxawal nañ ko jëm ci wàllu mbay mi mel na ne kër réew mi dab loolu nga xam ni muy bëgg-bëggam muy gis baykat gis boppam doon na jafe-jafe ci ñoom loolu nag doon na sabab bi nga xam ne moo tax sunum réew doon réew mu néew doole bu fekkee nag bëgg nañoo jëlee lii di ñàkk ci réewum senegal rawatina ci biir àll bi mel na ne kat dab loolu di seeni mébét jafe na leen lool